naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaku seen tey nag ñu ngi si aljuma mu tombeek 9 juillet 2021 suba di dima di samedi 10 juillet 2021 samedi suba ji nag ku ne xam na ne samedi la joo xam ne ah lamb dina ko fàttaliku ndax la ko waral mooy mbër yee ñu boole ki leen boole nag mu ngi nii toog te ko moom la ñuy jox micro bi muy fàllu Ndiaye mu ñëw ñu ci journée suba bi mu war a tëgg arène nationale parce que moom ay làmbam souvent maanaam macha allah day faral di neex day bëri nit day boole ay mbër mu mel ni ba mu ñëwee ba tey ak Ndiaye production ci noonu lay doxee sëñ fàllu maa ngi lay ziar si ajjuma ji. Babacar ñu ngi lay dellu fay bu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay di balu ñëpp àq ci ajjuma ji di baal di baal ñëpp àq di am bëgg rek daal bi ñu dalal tey di nuyu équipe bu bi yëpp. jiital nuyoo bi suñu grand sec di siyaar monde de la yëpp di siyaar ñi am mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi seetaan Equivox TV yëpp di am mbégte ci daal bi ñu daal bu baax nag Babacar tey. macha allah sëñ Fallou euh, mu mel ni suba euh, samedi yaa nga jëmat yaa nga jëmat arène nationale bi nga fa mujjee ay espoir nga fa tëggoon muy Belende ak bébé Birame ak xale ca tegu woon ñoom Tony sa arène bi fees dell suba loo ëndeeti. waa Babacar suba ñu ngi indi nag plateau bu riche plateau bu am solo ndax dañoo indi mu jóge fële ca Songaan Gueye nekk mbaru penc boole Tëngéej ak tubaab jalaaw ak yéen ak ñangal ñu indi ko boole ko ki nga xam ne mooy Maguette Seck Maguette Seck nag boo ko waxee muy Boy ñaar 2 ku ne xam ne dayoo bi am ci géejawaay ak géejawaay fi ñu toll jamono yi ci làmb ba pare di mën ne këram lay bëree ndax géejawaay ak arène bi yaakaar naa da ngay dox su la neexee kon muy plateau bu riche. ñu dëkk ko am solo mu Moustapha Mbengue meeru Kër Massar di suñu xarit di suñu mag di suñu frère ñu seex ay relation yu am solo muy làmb ju mag nag yemuñu foofu dañoo indiwaat Bébé Bismi ak nga xam ne mooy Papa Boy Djiné muy combat boo xam ne nii combat gars yi ne combat yërmande la ndax fi ñaari mbëri jóge la di combat bu am solo nag nga déglu open press Bébé Bismi gis point de presse Papa Boy Djiné nga gis seen taxawaay bi ñu am ci làmb ji boo gisee open press ba bis mi li génn ay nit yi Cambérène yaakaar naa bu ñu leen dugal ay national sax yaakaar naa dina yëngu lool. moo gis Papa boo Djiné point de presse bi def ak ni mu ko boo déggee seen i wax xam ne am na fu ñu teg làmb ji ñoom te booy ki démb bi doomu Jalaaw def point de presse euh, com euh, noonu la meloon. Baye Mandiaye deux démb fi mu doon defee open press dafa fees ba nit ñi xajatuñ fa ba tuddi sax open press bi yàqu kon yaakaar naa loolu moo lay won ne mbër yi ñi tëgg ñoo toll noonu. loolu di drapeau Basirou Ka euh, Basirou Ka responsable politique la APR fële ca Tivaouane Pël di jàmbaay sëñ Saliou di jàmbaay Cheikh Béthio ku mel noonu nag dafay jar nit ñi delloo ko njukkal bañ xam fan la ci réew mi bu ñu fa jógee ñu indi Baye Mandiaye ak Ago muy combat boo xam ne ni bu am solo la ndax Baye Mandiaye kee li mu ko wax contrat bi ñëpp dégg nañ ko mu ne ko parcelle ñeenti mbër la ñu fa xoo xaw ma ñett te ñëpp dama leen daan kii fii laa daan kii fii laa ko daan kii fii laa daan xam nga kon loolu yaakaar naa mbir la woon bu ñu la ko waxee rek yow sa doon waaj benn di nga waaj fukk kon yaakaar naa ñetti grand combat la yoo xamante ni amateur yi am nañ yàqin bu baax ne dinañ bëgg te seen xol na sodd ndax nag euh, boo xoolee ba Birahim Bilal bi ñu ko indi combat yu ndaw rek lañ defoon ay espoir yu ndaw mais ñu ñëw jëmmal ko di ay mbir am na ay champion lañ ñoom it di leen nuyu stade bi fees mbooloo bari rang bi dañoo mujj sax ubbi yeneen porto pour nit ñi mën a gaaw dugg ci làmb ji ndax boobu fekk na rang bi toll na foo xamante nii il faut ñu jéem ma xool yan disposition la ñuy jël ba nga xam te ne nit ñi dañ gaaw a dugg pour séance lamb ji. Euh, Bébé Bismi ak Papa Boy Djiné combat yërmande yaa ko wax combat boobu Fallou Ndeye sax na de. waaw mais nag lamb lool la tey jii dina am ku dem am ku xaar sa moroom mën nañ faa jógee ñoom ñaa ñëpp dem ndax lamb daan taxul nga deltu ginnaaw daan taxul nga yaafuus yàlla mooy bind yàlla mooy dogal ku yàlla may ndam da ngay xam ne kii la yàlla may ndam tey bu subaa ki ki waaj dem suñ boobu mën na ko mbay may ndam ci leneen. mais combat la moom ne ko am ah, métti la ndax dafa enjeu bi dafa bari ndax papa ku xam fi mu jógee xam fi bee bis mu jógee vraiment nga xam ne du combat boo xam ne bu yomb lay nekk ñaari mbër yi nii dañ ci xaar lépp dañ ci xaar bëre dañ ci xaar xeex boo leen dégloo bu baax a baax a baax. parcelle Guédiawaye. ba amee agogo bébé bis bi papa booy jënd. waa loolu soog la rek ay soog la boo xam te ne nii bu am solo la tey parcelle ñu ngi ñuy dégg Guédiawaye ñu ngi ñuy dégg. te yàpp naa ku ci ne ci ñoom yaa ngi waaja noo xamante ne am nañu yaqin bu baax ne suñ ñëwee stade ba di nga xam ne parcelle yi ngi fii géejëwa ngi fii ndax dèjà ñu ngi ciy waxtaan war a woo ay ñoom Baye Mandiaye Maguette Seck benn côté waa parcelle waa parcelle benn côté waa géejëwa nekk benn parcelle boo koy def mooy mooy violence wàññi coow li wàññi wax ji ak déconnance yi nga xam ne day am ci làmb kon ñu muy tëgg làmb dañuy bëgg ba toujours rek fair play di ci njëkk di ci di ci mujj démb ñu ngi commencé woote tey jii bu ñu jógee fii nañu woote waat fexe ba waa parcelle toogi benn côté fexe ba nga xam ne ni mooy waa géejawaay toogi benn parcelle léegi bu ko defee nag doomu Jaraaf bu ñëwee fu mu toog moom dina baax man non asafurlaa dina a toog ci côté waa yi ndax comme waa géejawaay dina mën a toog ci côté waa parcelle te doom benn problème ndax ñoom bëgg nañ daal disposition yoo xam ne nañ fexe waa géejawaay fii waa parcelle fii ak waa tëngéej ak waa doomu Jaraaf nga xam ne fee la ñuy toogee duñ laalante dara lépp rek bu ñu koy def pour bëgg làmb ji jàmm njëkk ci jàmm mujj ji lépp nekk ci fair play ndax it làmb la joo xamante ni incha allah su bokk fa ñëw di nga xam ne Ndiaye production ñëwaat nañ nag Babacar. lu tax fàlloog ñetti grand combat suba. ñun nag Babacar loolu dañ cee yàgg boo gisee bi ñuy def tournoi TFP bi noonu la woon suñuy làmb yëpp boo xoolee bi ñuy def Tyson 2 Gorosok Franc Guerre Mame Malamine yooyu yëpp Farouz doomu dàngu ñun suñuy événement noonu la tout le temps dañuy bëgg def ñetti grand wala ñeent wala cinq grand combat pour lépp amateurs yi beeg ndax amateurs yi ñoom xam nañ ne ñun duñ leen nax xam nañ ne bu baax ñun lu leen tëggal jox leen ko rek satisfaction lañ ci am ndax dañoo xam na kër yu baax yi xam mbër yu baax yi xam mbër yi nga xam ne boo tëggee tëggee vraiment dañu indi ambiance dinañ indi public dinañ neexal stade bi te bi loolu lay xaar ci mbër yi te loolu la bëgg te loolu la ñuy defal amateur yi am na solo balaa ma ñëw sax ci prix billet yi ak yooyu damay ñëw léegi par par rapport ak yaa ko wax léegi ci côté violence ak yooyu mu jug jug sécurité ak mesure CNC jël kani combat yi léegi 16h et demi defe naa la wax lay commencé bëgg nañ 19h lépp jeex yow en tant que promoteur di ku bokk si làmb loolu noo ko gisee. waaw Babacar xam nga man moom wax dëgg yàlla demuma woon ci réunion CNG bi ndax am na lu ma leen waxoon te li ma leen waxoon man ci laa nekk làmb nag 17h commencé ak 16 bu leen neex sax ñu commencé ko 13 waaye nañ fexe ñu yemale ko ci ñëpp man daal appel boobu lancé mbir daal su amee wala règlement di am na ñëw pour ñëpp loolu moo am solo règlement daal na na na na na daj ñëpp ndax fii nag suñu kër gi daa neex nag dangay wax di naan kafe di def sa lépp nag <laughs> dégg nga waaw non dañ la tegal sa basa ngi ñëw waaw sa basa ngi ñëw c'est-à-dire bu ñuy wax bu ñuy wax règlement dañuy fexe règlement bi engagé promoteur yëpp règlement promoteur yëpp man ci gis seen bopp. mais règlement boobu da nga bëgg ñëpp. est-ce que boobu maanaam dinañ maanaam kay buñ ko tegee xanaa pour promoteur yëpp la war a doon. waaw non mais xam nga tey Babacar dañ fay gis si lamb des fois ñu ñu ñu soufflé. 14h30 et demi 16h et demi da nga gis lamb ñu soufflé ko 16h gis lamb ñu soufflé ko 17h gis lamb ñu soufflé ko 17h et demi dem nañ ba soufflé lamb 18 waaw premier combat kon jàpp naa ne nag li am solo mooy ñu fexe ba promoteur yëpp ñu yemale leen réglementé heure yi même heure ñuy soufflé combat yi ci promoteur yëpp suñ ko defee coow du ci am dara ci am mais nag bu ñu bëggee euh, dëgg combat bi ñu soufflé ko heure bi combat bi bi kenn du ko nangu ay wax la fi indi naa mën naa ñàkk man na dama fee nekkatul pour kenn naan damay xeexal kenn wala damay waxal kenn déedéet xam nga may wax lépp lu CNC def valable na pour ñëpp nañ fexe mu valable pour ñëpp bu valable pour ñëpp nag naa ci wax la ma xam te man du ma nungu kenn di ma imposé lu ñu imposé wu sama moom promoteur ndax ñun ñëpp ñoo bokk lu jënd licence mais daal bu ñu génnee seen ay règlement nañ fexe mu valable pour ñëpp sama yoon wu ndax li ñëpp d'accord d'accord naa ji. li ñëpp waaw euh, Fall su ma ñëwee euh, li ñëpp ànd ànd nga ci mu mel ni ci côté promoteur gi tamit daa mel ni euh, seen kuréel gi nga xam ne càng danga caa bokk gis nañ ca ñu ca démissionné da dégg naa ne Sambay démissionné na. mën a leeral parce que yow ku ne gis na sa diggante Pa Abdou Fall. moom wax dëgg yàlla démissionné wut te wax dëgg yàlla. di su koo wax. non non c'est-à-dire euh, mbir mën naa am ay nit waxtaan waxtaan waxtaan ba waxtaan wi ñëw ñu ne ah président bi ne ah moom gisul nii bu giseen yoon war a demee nii nii la gisee bokkul ak damaa taxaw carrément ne bàyyi naa démissionné naa complètement waxtaan la woon suñu biir waxtaan suñu biir nag bu président moo ko génne mën nañ ne kat président daa génne ne na mais kenn mës a dégg Pape Dou Fall taxaw ne ah man démissionné naa ci association bi bokkoon woo benn presse wala woo kenn wax ko c'est-à-dire il faut nit ñi di comprendre. ñaareel bi mooy kuréel gi nga xam ne Pape Dou Fall moo ko jiite man maay seen trésorier bépp promoteur bu jiite lamb nañu yëkkati un million jàppale la ko kon jàpp naa ne jàppale foofu la mën a yem. Hmm. te un ñu leen di jàppale du xaalis Fallou Ndiaye du xaalis Pape du faal promoteur yi ñoo ko dajaloon ba am seen budget bu dëgër ñëwee nañ ciy jàppalante kon jàpp naa ne jàppale mënut a weesu ci nga am lamb ñu yëkkati un jox la jàpp naa ne foofu rek la jàppale mën a yem hmm. jàpp naa ne yow la engagé raison yi tax nga xam ba ne da ngaa démissionné yow la engagé waaye ñun la jotaguñ benn lettre démission boo xam ne jógee na ci benn nit ñëw ne démissionné na wax nag bu dee ay journal rek ay télé nag yooyu ñun mënuñu cee sukkandiku waaye daal comme këyit moo ñu tënk te këyit gu ñu tënk am na lu ci boole ku ci ne jàpp naa ku ñu andil këyit ne démissionné nga boo ñu woowee nañ la xamal ne diw démissionné na te lii moo tax mais nag ay journal ak télé moom duma ci d'accord ne kenn démissionné du duma ci basé ne kenn démissionné ne Sambay suñu rakk la suñu frère la peut-être tëgg na làmbam am gis-gis bu mu am wax ko am gis-gisu ne démissionné na bon peut-être gis-gisam moo toll foofu mais suñu rakk la suñu frère la suñu xarit la ñu seq ay relation yu bari man mii mas sama defal tranga ju rëy bi ma Fassane Ndiaye tuddee drapeau ya ma sol jour drapeau moo ma ko ñawal. moom Saam moom Saam kooku sama rakk la sama frère la te sama frère lay mas nekk du mas a nekk leneen. te gëm naa làmb duñu jaxase ci àdduna kon yaakaar naa ay erreur la yoo xam ne bu ñu toogee waxtaanee ko rek incha allah dañuy ne ci leneen tourner passe boobu ndax suñu rakk la suñu frère la te xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. est-ce que yéen a ngi waxtaan. non ñu ngi waxtaan te am en tout cas bientôt avant tabaski bi wala bu tabaski bi jàllee am na benn réunion bu mag bu ñu war a def boo xamante ne pour gën a waxtaan pour gën a dajalewaat nit ñi la pour gën a suurewu pour gën ndax bu fukki nit di gas téeméer nit suul di dina xaw a doy trop te loolu rek la mais ñoom ñëpp kenn ci problème ay yàq yàqkat ñoo ne seen ginnaaw di leen saboter di influencer di yàq rek mais ñoom ñëpp kenn ci problème wax dëgg yàlla man noonu laa gisee te ñun ñëpp benn lañ yi ci ay détails la. Euh, tey Fallou dinaa la laaj parce que lamb dafa bëri ay problème boo demee ci promoteurs yi da fay fekk nga ñëw ci ñun reporters yi ñun ñoo ëpp ñëppi problème coow la nga fa ne gat mel ni tulleeg màlle nga dem ca mbër ya même chose gis nañ Gris Bordeaux seen kuréel am ñu génnaat def seen kuréel. nga dem ca amateur ya noonu maanaam foo ci aw lan moo tax gars yi lu tere maanaam jéem a ànd bokk ndey ak baay waxtaan ci dans les yeux bët ak bët jéem a ànd bokk benn jubluwaay maanaam fexe promouvoir làmb mu gën a jëm ca kanam lan moo tax loolu mënta am kuréel boo ci dem rek xaaj na ñetti kuréel ak ñeenti kuréel lu indi loolu. xam nga Babacar man de wax dëgg yàlla amul benn promoteur bu may àndal pour intérêt tax ñuy ànd wala soxla dara ci yow tax ñuy ànd. te jàpp naa ñun ñëpp suñ doon àndee noonu xaajaloo du am mais bàyyi nañu ne ci làmb ñoo xam te ne bu sañoon kenn du ànd ak kenn kon nag loolu pour jàmm am ci ci côté yëpp day jafe ndax tey reporter bu ñu defee kuréel am na ko muy déranger kooka lu muy def sol dàllam pour fexe ba lépp tas su dee ci côté promoteur yi noonu beneen côté noonu beneen côté noonu. ba ca mbëri ya mais ñun ñoo bokkee intérêt. man jàpp naa ne promoteurs yi waruñu am problème seen biir ndax ñoo bokk ay entrain ñoo bokk ay entrain na fam ni nañ fa a bokk entrain mooy affaire mbëri yeeg yooyu yooyu garaawul ku ne xam nga ne ngay doyee sa bopp jinax man su ma xam naa ne ma doyee sama bopp jinax keneen noonu keneen noonu mais dafa am yoo xam ne ni ay intérêt yoo ne promoteurs yi ñoo ko bokk kon guur maa gis lu waral kii aw gauche kii aw droite lan la ñi koy def ban intérêt lañ ci am ban njëriñ lañ ci am peut-être dañ ci am ay njëriñ mais man gisuma ci benn njëriñ ndax man ànd ak paatek ànd ak démbalaage képp ku ñëw jàppe naa la comme sama bopp li ma la yéene sama bopp laa la yéene amul benn promoteur bu may xeex mbaa ma lay xañ mbaa ma lay yàqal ci li nga def dara gis nga affaire date yi bi ñu ko waxee dama leen date bu nit jël man ma jël ba ca des bu ki tëggee yow maa ki tëggaane sama man awma ci problème ndax jàpp naa ne man sama wërsëg laay jël keneen ki wërsëgum lay jël keneen ki li muy def mënu ma ko yàqal dara te gëm naa ne man it li may def kooku mënu ma ci dara kon yooyu dara ci làmb buñ ko ref nañ koy rafetal te bàyyi xajamal bi billaay wallaay taalaay gars yi ñuy wax ci micro ak li ñuy wax ci kaw saf ak li ñuy wax suuf ça nañ fexe ba li ñuy wax ci micro yi ñu koy wax ci kaw li ñu wax ci suuf na koy wax ci micro yi buñ ko dee def ñu xàmmee ñëpp mais bu ñu la dekkee micro nga tagg di wax lu la neex wax wax bu rafet lool te boo nee suuf bu doon jumaay Tuubaa lañ tabax sax mën nga ko mën ngaa dajji fondement bi loolu baaxul bàyyi sëñ Tuubaa jumaay Tuubaa rek ku ko laal da nga bëri problème tama dina la pibuum la man kay xam naa loolu loolu moo yàq làmb ji ñun amuñu benn problème man awma benn promoteur buy taxaw fii ne maa Fallou Ndiaye am nañ problème bi wala xama xama yàlla awma sax jot googu ndax jàpp naa ñoom li tal mooy seen business man sama business laa tal ndax man li may def doo nga ma ñor leneen ñoruma de li may tëgg doo nga ma ñor. Fallou tàngul. ñoom peut-être nit ñee ñu koy wax ma di la ko jot. na da ngaa tàng nag. non nga nit ñee koy gis mais làmb ji fi ñëwee ba léegi kenn du ne tooñ na ma kenn du ne Fallou tooñ na ma man te li kiy def laa la li ma wax mooy engagé wu ma wu ma du ma ci dugg billaay du ma dugg ci détail jàmbur lu waay tëgg yéene naa ko ko lu muy def yàlla na àgg ak jàmm man li ma ñor mooy li may def dinaa fexe muy neex man li may def dinaa fexe muy neex mais nag du ma baale ku ma ma defanteeg yow. nag baax na defal. waaw non problème bi yëpp mooy ku ma tooñ ma defanteeg yow saf sap dañuy def ma tam. léegi nga yaakaar baaxul. te du ma tooñ Babacar du ma dugg ci fi jàmbur duma dem ci fi jàmbur du ma sabootee fi jàmbur aw ma ci yàq aw ma ci defar lu ma bokkut bokku ma ca barke alxuraan lépp lu ma bokkut léew ma yónneew ma yàqu ma sabooteew ma bu ñëpp meloon noonu problème du am ci làmb ji nag léegi lan moo tax nga xëy a xëy tamit signature contrat nga def ko entreprenariat yaa ko fi njëkk def loolu Gambie lañ ko doon gisee defe naa Lamine ca jamay Gambie ñu ko doon fii Sénégal lu tax loolu. waaw li war a loolu dañoo ànd ak suñu frère jamaïcain comme ni ñu koy waxee dem Gambie def gis mu def fa lu mel noonu ñu gis ne lii war nañ ko mën a appliquer Sénégal ñu ñëw andi ko rek ci jamaïcain lañ ko piraté xam nga man moom damay piraté léegi damay dem gi waaj yor benn affaire ma ko nii. Ah, jam nga piraté laa ko piraté xam nga euh, waxal sa euh, moroom baax du yàq sa mbax dara dem naa bi Jamaïcain ma fa yóbbu woon ma dem fekk ma def lii mu intéressé ma ma gis ne li suñ ko defee Sénégal mën naa dox ma def ko du dara kon tey suñu ma laajee waruma réer ci Jamaïcain laa gisee kon damay soxor te du ma ko def Jamaïcain laa dem bi gis mu def ko mu réussir total te incha allah dinañ ko réussir de ñu ngi ñëw ndànk-ndànk dañ ko réussir total fii Sénégal. parce que gis naa garab Papa Abdou bi mu def tamit daa mel ni euh, dafa mbooloo mi dafa gën a yokku bi ñu ko defee moom mu def ko. xoolal tey bu kenn defaatoon day gën a yokku nañ fexe promoteur yëpp di ko def di ko def di ko def nañ dem ba signature dootu yàqu dina am sécurité dina am organisation comme làmb te kenn du am problème ndax li ñu ci jublu du xaalis xam lu ñu ci jublu mooy fexe mbër yi mën na ñëw def face to face amateurs yi kontaan seen supporters kontaan ñëpp kontaan dem mais li fi xewoon fan yi passé face to bu ñëw tojante oto yàq oto jàmbur yi loolu amul njëriñ si te passé combat gënu ko mag ci làmb ji bëy ki dem signature bi kon yaakaar naa li ko waral tey mooy innovation yooyu ñu indi bu doon toon loolu nga gis fa leneen kon loolu innovation la boo xam te ne ñuy ñaax promoteur yëpp ñu bàyyi ci xel. le 8 boobu yaa ko wax euh, le premier août boobu Siteu Papa Sow loolu lamb ju rëy la de. waaw non lamb ju réy la Babacar te lamb ju am solo la te lamb la boo xamante ne nii amateur yaa ngi koy xaar bu baax te Babacar dafa bari ay innovation yu ci war a am nag. Siteu Papa Sow non lu baree baree bare ñu ngi ko ci wàcc ci wàllu innovation ci làmb jooju ci préparation yu am solo di ko ci gis fii nag comme dañoo nekk ci bëre moom sooy bëree dangay ngay bañ a wane say kale dañuy denc li ñu yor téye ko di génne par di coppati par ndànk di génne gaa yi gis ñu coppati ndànk di génne par gaa yi gis ba sulu làmb ndax nag foofu la ñu fi tollu instant ndax fii loo fi def boo xëyee gaa yi def lu neneen gaa yi def ko wala loo xalaat ne dama koy def subaa nga gis gaa ko comme gars yi dañuy pirate duñu xalaat ñun bàyyi ñuy xalaat di denc léegi. ah yow da ngaa xam nga jamaïcain Gambie la ko defoon ñun ñëw Sénégal kay pirate man nungu naa de man damaa pirate fay nungu ko damaa pirate fay nungu ko nungu ne ma nungu woon lay metti mais damaa nungu ne biram na leen tamit loo xam ne for naa wala dégg naa ñi di ko wax Fallou Ndiaye en tant que promoteur di tëgg làmb gars yi ne njaaxaanaay la war a tëdd ñu gis la nga affiché wu ci tafaatin ba mu méttee méttee métti en tant que promoteur te euh, war nga mën a tëgg booy ñaa war nga mën a tëgg Tapha Tine Balla Gaye Bombardier est-ce que loolu tamit warteefu fàllu la mu affiché wu ci menn mbër moo xam ne daal ne na damay affiché wu ci moom par force. baaw ga maa ko fi njëkk def. yow laa wax dama lay laajaat ndax maa ko fi man yóbbante bi man. man naa leen Boy Niang sama xarit la. ah sa la Boy Niang. Boy Niang sama frère du ma ko yéene leen lu bon. xamante ngeen nii miinante ngeen. non romb nañ foofu. Rome lañ xamante Rome miinante franchement parler boo ñaa ñëw na sama dëkk seet si ma ñaari yoon bawal. Diouf Lambaye. waaw kon xam nga ne sama nit la cest à nag boo dañoo am lu ñu bëgg ñun mooy li ñoom booy ñaa amoon muy roi ñun dañoo soxla titre boobu nag léegi nag bu ko soxlaa duñ ci complexe nag mais teewul booy ñaa sama benn combat dañ koy faral bu ñu amee sax ñaan wala sarax sax dañ ko koy defal loo xam ko ko war ndax suñu frère la dañoo bokk làmb ji bu ñu ko soxla woon léegi dañ koy woo téléphone nag dañoo soxla sa combat ndax dañuy business làmb business la jotee la lii dara lii combat la mook Tapha Tine te ñun Bawol lañ dëkk feer ci Tapha Tine buñ soxlaa mu nekk roi des dañ ko war a génne ci suñuy xol wax ku nit ñi xam ne ñun dañoo bëgg Tapha Tine nekk roi ak ku may bëreel su ko defee ku ñu bëree di nga xam ne kat ñii Tapha Tine lañ bëgg mu nekk roi des duñ ko na bëree man ragal feer day xañ a wërsëg franchement parler combat bi su ma ci doon jàppale di nga ci jàppal tafaati incha allahu rabbi lu ma man ci sama xalaat ak samay ñaan dinaa ko def mais nag man ànduma benn mbër naan dama ko dul ay sëriñ wala dama ko dul ay galaaj déedéet jàpp bi mooy ñaan supporter ah foofu laa mën a yem nag ndax am na fa moom ne du ma fa dugg ndax du sama domaine domaine tafaatin lu ak staffam ak ñi nga xam ne ñoo ko yor seen en 300 mais mën naa koo ñaanal mën naa defa yeneen ay sóob nii rek tooñ mais nag ñoom ñoo ñëpp samay frère la daa ma fa ma ci war a yem ni tafaati nekk sama frère noonu boo ñaan nekk sama frère mhm. euh, suba yaay tëgg ma jeexal ak yow foofu tike ñaata la entrée bi waaw dañ koo yombal rek cinq trois grands combats la mil francs deux mille lañ ko def cinq mille. de mille cinq mille Baye Mandiaye de Agago. Bébé Bismi. booy Boy Djiné. Doomu Jalaaw euh, Boy Niang 2 ak yeneen espoir yu ndaw yoo xam ne ñoo gën a saf sax ñooñ ndax xam man samay làmb suuf gi day saf ba ca kaw. waaw te incha allah suba di ngeen gis leneen de. Mm-hmm. waaw suba moom dañ gis leneen. Mm-hmm. ndax liñ tëgg xam nañ ko. Mm-hmm. te li ma wóor mooy combat mooy gën a neex beneen bi Birahim suba te be beneen bi Ibrahima gars yi gisoon nañu seen bopp bu gis naa benn lamb bu fi amoon tamit amoon ay quelque kii foofu laay jeexalee ak yow ñu gis nga xar ci sa tànku tubay jàpp ci muy Vox Arena Franc ak Tyson 2. <laughs> non Beuz nit ku baax la nit ku baax la et nit la ko am yërmande te Beuz wax naa ko démb lës bi ñuy waxtaan ba ne ko man dafa bett ci lu bari léegi Beuz lu ma neex wax ko ndax dama koo ñemee xam nga lu tax mooy boo xamee xolu nit da nga koy ñemee ñemee def ak moom lu ne. ndax dafa xolam dafa baax mu rafet combat mu def ci lu lépp nag barke alxuraan lépp moom la Fallou la ñuy gis nii lépp mais lépp moom la barke alxuraanu kayim te bëggul kenn wax ci boo ci waxutoon du ma ci wax ci àdduna. waaw que li tax ma wax ci mooy ka tëggoon combat ba wala ñu ko tëgg muy waa Vox na ñoom ñoo ma wax ne dañoo kontaan ci. taxaw ba nga leen taxaw kera yow ak bës leen ne maag yéen a bokk milieu bi da ngeen a ñëw ma di leen soutenir pour lii réussir loolu moom déjà Seck wax na ma ko te itam yóbbante ak la xam nga affaire bi du xaalis jàpp du xaalis c'est-à-dire boo nee jàpp nit ñi dañuy gis xaalis mais du xaalis ndax Vox Arena label la bu am solo boo xamante ne nii yaakaar naa ku gis dañuy investir ci àdduna xam ne ay problème xaalis du seen problème ay nit la ñoo xam ne bëgg nañ mais ñun ñu gis ne seen affaire bu ñu ci jàpp dina sooxee ñu ñëw accompagner leen jàppale leen dooleel leen ba li ñu bëgg mën a antu te bi ñu ko yàlla defee yàlla may nañu ci ndam ba làmb ja jeex na ci jàmm déggoo fi coow déggoo fi dara te loolu lañ doon xaar te loolu lañ doon def kon dañ ci santaat yàlla bu baax te it ñun bu fekkee dañu feneen ne làmb la ñuy waxal wala làmb moo tax ñuy wax waruñoo xaar làmb di yàqu làmb bu ñu gis ñoom war a yàqu ñu xool critères yi koy yàq xam ne ay critères yu jaadu la xam ne war nañ ci mën jàpp dañuy ñëw taxaw dëggal suñu bopp jàpp ci pour làmb jooju am ak côté bu mën di doone nag loolu mooy suñu rôle te foofu la ñu sénégalais yi war a xaare Babacar mais dootuñu gis Fallou Ndiaye beneen de la gis bu bokkut ak Fallou bi ñu doon gis ndax léegi Fallou Ndiaye lu ñëpp ànd ànd na ci ndax bu dee jaas la ñuy nañu ko doo ñun ñëpp bu dee paaka ñu ko jamandoo ñun ñëpp lépp lu ñuy lépp lu CNG def promoteur yi ànd ci man ànd naa du ma contesté waaye daal wata taxas wet ngay bañ daal yow waaw non loolu bu amee man dinaa wax sama côté en tant que Ndiaye a dañoo waa def li CNG bi nii di kiiti nga kenn déedéet ndax jaru ko ndax tey da ngay ñëw ne CNG li mu def jaaduwul ñëpp xam ne jaaduwul promoteur yi ci am ñooy woo CNG neen dégg nga li Fallou Ndiaye wax kon koy jaatu ko kon koy jaatu ko léegi man li may def mooy sama làmb laay engagé man rek ci làmb du ma am problème ndax li may tëgg mën naa ko te du ma am problème li may tëgg am naa lu ma ko defee yàlla suturaal na ba li may tëgg am naa lu ma ko defee kon man li may kaas ak kulloo ban importance la ma amal dootu ko defal kenn léegi nu waay na xam nu waay xam na tojo bopp dina xam man sama bopp dina xam donc laay toj te moom a bëri yëpp wallaahi combat bii ma jëm moo ma ci gën a neex. a bëri. maa ko daa ko ma ko bëri ndànk sax. danaa ba toog ci kaw. bu fekkee dafa am fu mu lu ma bëgg a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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk